ci euh, accueil euh, li nga xam waaw dañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un tey képp kuy doomu Sénégal ngay sportif rek waroon nga teew fii delloo njukkal sunu xarit sunu doomu sénégalais ñaanal ko yàlla yàlla xaree ko na ndax boo nee sport rek ñun ñoo bokk ndey bokk baay Pape Bouba bégal nañu façon bégal bu ne nekk doomu Sénégal nekk doomu Tëngéej te Tëngéej maam fi histoire bu mag nekkoon fa di bërëm ba pat ay ati at kon Pape Bouba bu génnee àdduna rawatina euh, muy doomu sénégalais ak lu mu def yëpp ci Sénégal war nañ ko mën a ñëw taxawu ko muy dernière kii bi ñu ñaanal ko yàlla yàlla xare ka àjjana tamit lu may waxati leneen li mooy maa ngi féliciter le président de la République ba nga xam ne tey ñëw na teral ko ba pare jël stade bi nga xam ne moom la war def jëm ñaajo tuddee ko ko ça c'est un plaisir pour tous les sportifs je vous yow témoin de l'histoire du football mën nañu ko wax sénégalais voilà tey euh, loo jàpp ci bés waaw bés bu bés bu la mais bés la bu nga xam ne aussi dafa am màndarga ndax euh, bu ñu fàtte ni le 31 mai 2002 ajjuma la woon ajjuma jooju ñun ñëpp ñu ànd ak mbégte di fecc di fête victoire bi Sénégal amoon ci France te Pape Bouba Diop mii fi tëdd tey dugaloon ko tey nekk ajjuma. ni àjjuma joojee ñu amoon mbégte tey ñu am naqar ak ndax Pape Bouba dëddoo na fi mais li nga xam ne rek moom la ñu mën a wax moo di ni ku nekk na nga fexe ba sa réew euh, am ci yow euh, lu muy retenir parce que tey président élevé ko au au grade de l'ordre national du mérite du Lion donc loolu wane na ni Pape Bouba am na lu mu jëfal Sénégal euh, mais nekk na aussi joueur bu nga xamante ni exemple woon ci biir terrain mais ci biti terrain ndax ci biir terrain dina jof jom fulla ak fayda c'était un exemple de discipline tactique de discipline dans le terrain et un dor du terrain mais nit la woon bu nga xamante ni discrétion bi nga xam ne ak yar bi mu am ak dal gi mu dal noonu la léppam demee ba ci feebaram ñu bari yëguñu ko génn àdduna rek la ñu yëg moom mooy nitu sutura ci sutura la dund ci jom la dund ci teraanga la dund ci fulla ak fayda la dund waaye tamit ci teraanga ak surtout la génn àdduna dañ koy ñaanal yàlla bu ko cat jiitu si bàmmeel en tout cas c'est un hommage mérité te li président wax ne dinañu am musée bu nga xam ne ci la ñuy def euh, euh, li nga xam ne mooy œuvre ñi fi jóge woon loolu lu am solo la bokkoon na ci man li ma doon xalaat ne euh, war nañ ko def président heureusement bi mu ko waxee je pense que ce musée est important pour immortaliser les faits de nos internationaux donc voilà ça c'est ce qu'on peut Pape Bouba s'en va mais mi ngi bàyyi ginnaawam way wu dootul fay bu mukk. am na lu ñu doon xaar tamit euh, numéro 19 dañ koy gis ci bitim réew euh, su joueur génnee àdduna euh, numéro ñu retiré ko voilà loolu tamit ñu ngi ko doon xaar tey waa xëy na décision bi du nekk euh, décision wu président loolu décision wu fédération sénégalaise de football la mais jekk na jaadu tey Pape Bouba ak li mu defal Sénégal tey kenn mënatu ko defaat mooy bit bu njëkk dugg ci histoire coupe du monde Sénégal Pape Bouba ko dugal keneen dootu ko def loolu euh, rek doy na ci mandarga pour numéro 19 bi ñu retirer ko définitivement de la sélection à la mémoire de Pape Bouba je d'accord